Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nak, bésal bouton abonnement bi teg bul faté activer walla cloche de notification bi dé ngir baña a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant bon visionnage non grand Momadou gis nga Modou du xeeb du xeeb du mës a xeeb du mës a xeeb euh, Ama Baldé ñun Ama Baldé nangul nañ ne champion la nangul nañ ne am na ginnaaw mais Ama ngemb bu dul ngemb ngemb la yaakaar ci ci ci ci làmb ji ak doole parce que ñëpp ñu ngi ko naan moo ëpp doole Modou Lo doole lay àndi doole boobu yàlla mu andi doole bu ko diisal nag waaw wala mu andi ngemb te ngemb moom mënuma ci. Balla gay rek lay bëreel mu mu mu mu ëpp ma ngemb fii ci senegal mais ku dul Balla Gaye faaluwuma la ci ngemb waaw waaw bu fekkee bëre bi nag ama amul bëre bu jaaxal Modou loolu moom Sénégal yëpp xam nañ ko làmb la nag Modou Lo mun na ko ama mun na daan mais bëre bu jaaxal Modou amul waaw. Cheikh Sarr Cheikh Sarr amul waa Pikine lu ñuy nangu ak lu ñuy bañ waa mu mënuñ ci dara Ama Baldé mooy ñëw bëre bu yeboo ñoom ñëpp ñu jóg. contre Eumeu Sène ñoom ñëpp dañoo jóg parce que Eumeu ale bi Modou Lo ko humilier daan ko munul nekk gëmuñ ko munuñ ko woon gëm munuñ ko woon nangu Eumeu Sène tamit munul woon nangu defet boobu il fare ko mu jël revanche am yaakaar ne revanche bu ñëwee dina ci génn far mu ñëw mu gën a piir ma ne la Modou Lo ku dul Balla Gaye faale wu ci làmb ji te Balla euh, dafa am lu tax. waaw loxo yi siy dugg te bokkuñ ci looloo may sonal contre ball la ne la làmb ji ku dul Balla Gaye mënu doo dox ci Modou Lo ana Lac de Guiers bi ko waxoon ana Gris bu ko waxoon ana Bombardier bu ko waxoon ñoom ñëpp yóbbu na leen ardo ay booy amul xam-xam bu daan Modou amagu ko kele bi amagu ko ci Balla lay roy xam nga Balla lay àndal waaw ak ñoom baabooy luñ koy wax bu arbitre sifflee doxal ci kawam te nag loolooy musiba bi Modou kenn du dox ci kawam loolu la gën a bëgg mbër la champion la mais nag bëre du du mbërëm taan Ama ay bëre yu sew ay tic tac déedéet arbitre pip mu suul tànk bi dox sa kaw waaw te Modou kenn du ko def loolu. waaw Pape loolu nag moo koy andil musiba nee naa la comme Balla Gaye saa yu arbitre sifflee mu dox ci Modou Lo am mais loolu lañ koy digal. la mooy magam loolu la koy digal Baboy tamit loolu la doon bëree loolu la koy digal ñan ñoo ko seq Baboy euh, Balla Gaye ñooñu ñooy ay magam ci làmb Gilles Balde loolu lañ koy digal ah. yaa ko ëpp doole bu aar bi ne pip doxal ci koom loolu la nag baam la. non waa ji jàmbaar loolu loolu sa xalaat la de Modou Lo mbor bu mag bi loolu sa xalaat la de ah sa xalaat la. Si rek nga wax ñu la non mais attention Ousmane Ama balde day lolu Ama balde bim ba la lolu dafa bokk ci bërëm Habib rek mu dox la day bëre lolu xam nga kon nekk na lo xamné la bokk lolu ci forum la gis nga la nekkee foru Ama Balde. de waaw noonu lay demee nag Père Mamadou Ama Baldé champion la champion la xam nga mot na mbor mbor yi nga gis foofu noonu ci kaw ëpp ko dara ëpp ko dara. waaw loolu forum la quoi loolu forum la mais tamit ak ñu muy bëreel tamit adversaire yi du ñu benn de. non Ama def loolu Ama du def loolu Habib bi du sifflé Ama dox ci kaw Modou loolu Ama ko def. xam nga lu tax ñoom ñaar seen taay dafa tolloo xam nga Balla Gaye dafa sut Modou Lo ci taay loolu moo tax bu defee loolu Modou Lo day am lu mu bëgg ci moom mais gis nga ay ñoom Eumeu yooyu ay Ama Baldé yi ngeen di indi nii ñooñu dañoo tolloo ak Modou Lo taay moo tax ku ko ci def Modou Lo du baax bu leen jàpp ne Ama Baldé dina dox ci kaw Modou Lo déedéet attention attention kon Ousmane bu doon loolu kon eh, Ama eh, day daan barag day daan eh, Modou Lo bu doon ñooñu ñoo koy digal kay bu di bu fekkee système boobu la ñuy jël daf koy daan lu leer lu leer laa la wax. non attention Ama Baldé bëri na fi ak ak Malick Niang te Malick ñaa ku mën xeex la kenn dàqu ko xeex Modou mi ngeen di wax sax dàqul malik ñaa xeex te Ama xeex xeex na ak moom te gis ngeen ko donte sax Ama. ama euh, waa ji jekkoon na ko ci xeex bi mais gis ngeen ko benn coup la door waa ji mu kawoo xam nga kon <laughs> attention de nekkul ne nekkul ne moom moo dàq Ama Baldé xeex rek kon kon da koy wàcce kon attention làmbu la. non grand Momadou man xam naa ne Ama Baldé ak ak euh, Balla Gaye bokkuñ bëre Balla Gaye day bëre tànk di bëre loxo Ama loxo lay bëre Ama du bëre tànk. waaw mootloo day bëri tànk day bëri loxo déjà Modou am na lu mu ko ëppee ëppee te Ama eh, ni ni di def Modou Lo euh, at bi nëppi mu dox ci koom da ko sut da koy ëmb chaque da koy ëmb da koy tiim bokkut ak Ama Baldé Ama dafa gàtt Modou Lo moo ko sàcc tuuti waaw te Modou képp koo xam ne tolloon naa ak moom munoo ko def loolu waaw combat boobu ma ne la Ama sëriñ la ci yaakaar ak doole. waaw ma ne day def lu loolu sax ama lu taxaw xaar Modou Lo de waaw waaw Modou Lo na ko so na sooraali loolu du ko de du ko xaar bi sifflé ma day ñëw de lu mu am lu jël non c'est gis nga Modou Lo ak Malick Niang ñoom ñaar bokkuñu te du ñuy xeex sa bokkuñu parce que Modou Lo dafa xam point ko xam fu muy dóor nit mu wàññeeku daf ko xam de ba pare diggante Malick Niang ak Ama Baldé Malick Niang wartuloon perte combat boobu noonu Malick Niang combat bu wartu ko ñàkk. Ousmane waaw ci idée ci idée boobu man ànd naa ak yow ci idée boobu xam nga eh, Modou Lo tànk ragalul plaque yi du ko daan tànk ragalul plaque yi du ko daan loolu moom lu leer la waaw tànk mu ngi ñeme balage du daan balage foo mu ragal bala yey pour soog a soog a ko donc mu ngi ko ñemee di ko daan de waaw waaw. waaw Ama Baldé nag bu arbitre ne fii doxul ci kaw Modou ba mooy bàyyi na bëreem bàyyi na bëreem waaw bàyyi na bëreem ku bàyyi sa bëre nag doo bëre Modou képp ku bëreeg moom plus de cinq minutes dootu ko daan Modou képp ku bëreeg moom plus de cinq minutes doo ko daan waaw kenn rek moo ko fi def muy Bombardier mais ku dul loolu ku dul ku dul kooku bu mu dalee bëree ba léegi. kan mooy fi bëre ak Modou Lo plus de cinq minutes daan ko boobaa day gën a bon ci Ama kon boobaa Modou dina ko dóor dóor yu dina ko yóbbu ay ardo ardo ardo ardo ba wuy ma bam ba sonn. waaw oh, grand Mamadou man xam naa ne Ama Baldé ak ak euh, Balla Gaye bokkuñ bëre Balla Gaye day bëre tànk di bëre loxo Ama loxo lay bëre Ama du bëre tànk waaw Modou day bëre tànk day bëre loxo déjà Modou Lo am na lum mu ko ëppee te Ama. Eh, ni ni di def Modou Lo eh, arbitre bi mu dox ci kawam da ko sut da koy ëmb chaque da koy ëmb da koy tiim bokkut ak Ama Baldé Ama dafa gàtt Modou moo ko sàcc tuuti waaw te mootloo képp koo xam ne tolloon naa ak moom munoo ko def loolu waaw komba boobu ma ne la Ama sëriñ la ci yaakaar ak doole waaw. non Ama du def loolu Ama du def loolu abi bi du sifflé Ama dox ci kaw Modou. loolu Ama du ko def xam nga lu tax ñoom ñaar seen taay dafa tolloo xam nga Balla Gaye dafa sut Modou Lo ci taay loolu moo tax bu defee loolu Modou Lo day am lu mu bëgg ci moom mais gis nga ay ñoom Eumeu yooyu ay Ama yi ngeen di indi nii ñooñu dañoo tolloo ak Modou Lo taay moo tax ku ko ci def Modou Lo du baax bu leen jàpp ne Ama Baldé dina dox ci kaw Modou Lo déedéet attention attention. waaw Pape loolu nag moo koy andil musiba nee naa la comme Balla Gaye saa yu arbitre sifflé mu dox ci Modou Lo am victoire mais loolu lañ koy digal Balla mooy magam loolu la koy digal Baboy tamit loolu la doon bëre loolu la koy digal ñan ñoo ko seq Baboy euh, Balla Gaye ñooy ñooy ay magam ci làmb Gilles Balde loolu lañ koy digal ah yaa ko ëpp doole bu arbitre pip doxal ci kawam loolu nag musiba am la. non Cheikh loolu du dara ci làmb loolu du dara. nit mun nga ko topp ay at at at at waaw nga ñëw bis làmb ji nga ñëw ñu humilier la loolu yàgg na fii nii waaw ñu loolu ñu de tiitaluñu parce que loolu moom Modou Lo bu ko naree calculer mu wax dëgg yàlla kon na bàyyi làmb quoi waaw bu naree calculer loolu moom mu bàyyi làmb ñu loolu jaaxaluñu de. c'est que le problème mooy que ne ñi gën a garaaw ci làmb ji damaa bëri ak ñoom aller retour dama ko ama dama ko ëpp expérience ci bëre ëpp ko expérience ci ngemb waaw. waaw man toll naa Modou toll na foo xam ne ci làmb bu duggee estaat sax xam na moom fu muy teg ci mikaayam doonul doonul luñ koy digal bokkuñ nag yéen it da ngeen di boole loo xam ne bokkul ama booy lay def loolu rek waaye du ko def Modou Modou xam na lépp. ma ne boo fàttali ko euh, kii nu mu toll ci Gris euh, euh, Gris Bordeaux nu mu doon laajee baabooy moo gënoon garaaw xeex nañ sax dem ba Diop te ñuy xeexaguñ. waaw dara mbër mun nga ko topp am loo yaakaar nga ñëw nag la nga yaakaar nekku fa ma ne la Modou dama lay wax benn affaire li ma lay wax ni c'est très sérieux Modou ëmma seen ñett ñooñu ah boo leen daanul avant làmb ji ah boo ñëwee doo leen daan waaw ci biir géewul kese doo leen daan de ñooñu da leen di daan avant làmb boo ñëwee mottali mais du ay ay ay avance vingt cinq millions mooy daan Modou Lo wala Balla Gaye wala wala Eumeu Sène de ama ama ama ngemb boobu booy la koy booy la koy andil rek waaye du Modou Lo la kay àndil